ni lañ leen nuyoo mbokku téléspectateurs yi yéen ñuy seetaan un peu partout ci adduna bi ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum yéen a ci seen télévision ci TV ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy ACAPES fii ci Parcelles Assainies fii la moodu Xarañ loo war a def open press am gis ngeen mbooloo mi macha allah ni ñu bare ñëw seetaan si seen champion gis ngeen Moussa Yacine ak batterie bi li nga xamante ne moom la ñuy tàngatoo ñu dem xooli tuuti public waxtaan ak ñoom. na la ñu waajalee seen combat royal bi champion yi nga xamante ne contact nañu ak ki nga xamante ne moom mooy xaral mi jël ci kenn rek jegaan maa ngi siyaar. siyaar maa lay siyaar wér. naka yëngu yi lépp jaam alhamdulilah. an sa waay. saa yi mi ngi ci yoon mi xam naa léegi mu agsi de. ànd ngeen contact euh, ngeen liggéeyandoo alors lan nga sentir bi nga jàppanteeg Modou. waaw moom moom liggéey na Modou moom mosul ñëw combat ñu ne liggéeyul mais bii moom. rawatina quoi parce que li mu dig waa Parcelles dafa jot mu andil leen ko. sa waay di bëre pour une deuxième di wuti ci titre roi des arènes loo koy rawal di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal salaam di ko ñaanal wér ak wér le di ko ñaanal suñu borom musal ko ci cat ba bis la may ko ndam ci kaw Eumeu Sène ci barke Seydina Mohamed. Modou dañ koy préparé chaque fois ni nga daan préparé yàlla dañu may ndam tuuti beex bas bàq yu bees ak yëpp ñu ko daan préparé. Modou xarañ loo mooy dugg si noonu jéem a lijjanti face à Eumeu Sène roi des arènes Eumeu Sène nag bii di première sorteem mu war a nekk combat bu doy ndax am roi des arènes bu ñàkk première sorteem mësta am waaye aussi mësta am roi des arènes bu maye revanche Modou Lo egsi na ki nga xam ne laay Pythagore moom moo wàcc Yékini Junior it wàcc na ولا فلا عيب جورنا فمن معي di seetaan di ñu bëgg a gis s'il vous plaît ak suuf ngeen mën a ngeen jël ay image wala bu ngeen toog sama baay les gens sont là pour concert mais dañ leen di teg s'il vous plaît ndeysaan dëgg la caméraman photographe. waaw papa ngi ñëw di def ay. s'il vous plaît lii la moom mi ngi waaj a bëri combat capital Franc xamul ne lii mooy demi final bi Franc mooy bëri ak góor a sax ak kale noonu ñaar ñu mel képp le concept parcelle sans frontières est une réalité Yékini Junior ñu koy gërëm yëpp combat yi mag la ci man te chroniquement ngir leen ko dund téeméeri yoon si porteur yi bëgg nañ ko def mais maa ngi bëgg ko téeméeri yoon day wax la ko def man xalaat ko sax pour man ko baax la sax xalaat ko sax am ko dara am ko leeral ambassadeur nee na boo taxawee dëgg sa bopp ñaari fan nga jël ko bëre te bu la jàppee da nga doon daw. le 28 soo xeeti incha allah le ñëpp ku fi bëri mool incha allah loolu daal la ko soob lépp dina leer incha allah. qui ñu Eumeu Sène mais pression bi si le féete wala si Eumeu Sène le féete amuñu am mu dul si suuf ñun combat yëpp pression ci dañuy def lu ñu war a def rek bàyyi leen ci loxo yàlla dem uti te ñun lu ñu war a def yëpp def nañ ko am njort bu rafet ni incha allah le 28 dañuy jàpp Eumeu Sène bu soobee dañu gis ne ëllëg seen dafa wàññi courant pour prési te man jiw la yee ba ba ma mag ne samay tànk ngi ruudu bëre ñu bëre tànk bu xeexee ñu xeex ñu bëgg incha allah loolu incha allah le 28 la koy jàkkaar incha allah waxoon naa ko keroog si le 28 juillet lañ yaakaar projet bi incha allah. waaw di sant ñëpp parcelle un de vingt six fépp fu supporteru Modou Lo nekk jugee maa ngi lay sant di gërëm di nuyu yaakaar bi et puis ci suba bi